mbooloo mi sëriñ bi wax na ne bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sama gan yu tedd yii. mu ne ganam ñu tedd ñii. jóge ci sunu kilifa yu tedd yee. jóge ca kilifaam yu tedd yële. maa ngi leen jox nuyoo bi. nee na mi ngi leen mi ngi leen di jox nuyoo bi. ak mboolem mboolem taalibe yi ngeen fi fekk. ak nag mboolem taalibe yi ngeen fi fekk. te noo ngi ci biir taalibe gi. te nee mi ngi ci biir taalibe yi. di sant yàlla bu baax. nee mi ngi sant yàlla bu baax. bi lii mënee am. bi nga xam ne lii mën naa am. yàlla delloo sunu daaw ak ren nu dellu si yàlla defalaat ñu delloo si laat ñu daaw ñu dellu siwaat bay waajal mm, bis bi nga xam ne bay waajal nag bis bii nga xam ne bis bu rëy ci lislaam bis la boo xam ne bu rëy la ci lislaam ndax lu rëy ci sëñ Touba rek rëy na ci lislaam ndax lépp loo xam ne rëy na ci sëñ Touba rek rëy na ci lislaam kon bi yéen ñi jóge ci sëriñ bi kon nee na ñi nga xam ne ñoo jóge ci sëriñ bi maa ngi leen jox loolu. nee na mi ngi leen di jox loolu. di ko jàllale nag ci njaboot gi ngeen fekk yëpp. nee na di jàllale loolu nag ci mbooleem njaboot gi ñu fi fekk ñëpp. njaboot gi nag mm, ku nee ngi ci. nee na njaboot gi nag ku nee ngi ci. muy ñii ngeen fi fekk. muy ñi nga xam ne fekk nañ leen ci dëkk bi. Eh, ñu tàmbali waxtaanu wi di leeral nit ñi diina ji ak yoon wi ak sëñ bi. ñi nga xam ne fekk nañ leen fi. ñuy waxtaane diine ji ak yoon wi ak sëriñ bi ak sunu meeru dëkk mi ngi nii ak meeru dëkk bi nag mi ngi nii ak i am ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ak i chef de village ak chef de village yi nga xam ne it ñu ngi ci ginnaawam bari na ay autorité yu fi ne docteur Camara ñoom a ngi nii ak ñu demee ne moom nee na bari na ay autorité yu fi ne ndax docteur Camara ngi nii ak ñu demee ne ñoom Euh, ñu ngi ci biir ñoom ñëpp. nee na ci biir mboolaam mi ñëpp a ngi ci. Euh, muy njaareem. muy njaareem. di tooki nag. di tooki. ndax defe naa waxtu wi biig. nee na jàpp na ne waxtu wii biig. démb ca bëccëg. démb ca bëccëg. la nit ñi yëg ne daañu ñëw fii. la soog a wax nit ñi ne leen da ñëw fii. kon bu ngeen ñëwee. kon bu nu ñëwee. dikke nii ngeen dikke. dikke nii ñu dikke. sagale ko Serigne Touba. sagale ko Serigne Touba. sag bi man moom ma ko sëñ bee ko moom. nee na sag bi kat moom moomu ko sëñ Touba rek ko moom. kon faw ma ameel leen ak cant. nee kon moom faw mu ameel ñu ak cant. cant gu rëy. cant goo xam ne nag gu rëy la. moo tax sax ma jiital leen. nee na loolu moo tax sax mu jiital na ci wax ji. ci biir wax ji. ndax euh, su ma tàmbalee ci sëriñ bi. ndax bu wax ji tàmbalee ci sëriñ bi. mën naa am ma bàyyi. mën naa am ma bàyyi. te wax ja du àgg. te wax ja du àgg. te tey sama xol sedd na ci yéen. te tey nag xolam dafa sedd lool ci nun sedd gu wóor. nee na sedd gu wóor. ndax xam naa ne sëriñ bi jaral na leen. ndax xam na ne sëriñ bi jaral na nu. te ku sëriñ bi jaral jaral na ma. te nee na moom ku sëriñ bi jaral rek jaral na ko. kon na ngeen loolu daal fi la mën a yem. waaw loolu de moom sëñ Modou lu rëy la. ndax maam ma waxoon na jaral na ma. maama moo waxoon sëñ Touba na ko jaral na ma. bi soxna Anta Ndiaye ñëwee ci sëñ Touba mooy mooy fas wa mooy fas wa na ko aafe mii am ak Cheikh Anta ba doon da leen a fay ëllëg mu ne ko jaral na ma jonga alors xaw ma ko woon sax waaye jaral na ma nee na jaral na ko kon hmm. kon nag kon nag eh, bu ma weesoo fenn fi bu weesoo fenn fi ci ab murit buy daanu ci ab murit buy daanu mën naa yàq jataay bi mën naa yàq jataay bi kon nag nee na kon nag maa ngi leen di sant nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen gërëm ngeen may ma rek nag nee na ñu may ko rek nag tuuti. ma dellu siwaat ci rek ci sama doomi sëriñ yi toog. mu dellu siwaat nag ci doomi sëriñam yi toog. kii baayam ma ma jàngal na ma lu bari moo ma teete ci njàng lu bari. nee na sëñ Modou Mbacke si nii way juram sëñ Moustapha si. moo ko teete ci njàng mi lu bari. ak ñoom ñi àndal borom xam-xam yi àndal yëpp jàng-jàng la ñoom ñëpp samay doomi sëriñ lañ nee na jàng-jàng rek la. borom xam yi xam yi nga àndal yëpp ay doomi sëriñam lañu. daara ja nga jógee daara jaay jokkaloo rek baag si foofu nee na daara ja nga jóge mën naa moom dongaa ci jóge sos daar daara muy jokkaloo rek baag si foofu kon sama doomi sëriñ yi kon doomi sëriñam yii waaye jóge nag ci sama sëriñ waaye nag jóge ci sëriñam muy cheikh Mouhamadul Mountakha muy cheikh Mouhamadul Mountakha mi leen yabal mi nga xam ne moo ñu yabal jaar ko ci ki yore jaare ko ci ki yore kàddoom ak doomam jiñ dënk euh, yoon wi nii ak doomam ji nga xam ne moom lañ dénk yoon wii ñu dox si nii. maa ngi leen di nuyu bu baax. nee mi ngi leen di nuyu bu baax. ko jaarale rek ci sëriñ bi. di ko jaarale nag ci sëriñ bi rek. ndax ah, boo tuddee sëriñ bi rek. ndax boo tuddee sëriñ bi rek. mooy lépp mooy lépp. ndax lu mu ne woon na fi yem rek fi lay yem. ndax kat lépp loo xam ne sëriñ bi noonu woon na fi yem du jàll fa lay yem. kon nag. kon nag. sëriñ Modou Mbacke. sëriñ Modou Mbacke. Eh, dégg na li nga wax. nee na dégg na li nga wax. xam naa ne xam nga ma. xam na ne xam nga ko. waaye eh, xam naa la. waaye nag nee na xam na la. ndax eh, ba may jaar ndaam. nee na ba may jaar ndaam. suuf sa daa ñuul kuk suuf sa daa nu ñuuloon kukk. laxasaay ya fa ñëwoon nekkoon fa di laxasaay sëñ Modou Boussa Dieng. nee na laxasaay ya fa ñëwoon di yu sëñ Modou Boussa Dieng. maa fa nekkoon ak ñoom. nee na moom mii moo fa nekkoon ak ñoom. defe naa toj nga ko. defe naa ne toj nga ko. def nga fa juma. def nga fa def nga ko far muy ab maire yi far. def nga ko sax mu de ab maire fay. maire yi far ab maire yi nga xam ne ab maire am na fa ab commune la. ab maire yi la ab maire am fa mu di commune. kon loolu. kon loolu. Eh, lu nu dund la. lu nu dund la. 1967. 1967. kon boo waxee ci nun kon boo waxee ci nun ah da ngay wax ku sa baay jàngal rek. da ngay wax ku sa baay jàngal rek. waaye xëy na àggunu foofu sax. waaye xëy na àggunu foofu sax. waaye gëm naa ne waxoo loo gëmul. waaye gëm naa ne waxooloo loo gëmul. suñ la yebaloon yow rek. suñ la yebaloon yow rek. yaa ngi ñi nga àndal. yaa ñi nga wallaahi da ngeen ma man ga mat gan. wallaahi da ngeen ko mat gan sëkk. waaye nag. waaye nag. sama kilifa bu ne na ngeen ñëw fii. bu fekkee ne nag am daa wax ne na ngeen jóg ñëw fii. E, da ngeen di doon samay laneenaat nag. dangeen di doonaat nag laneen ci moom. kon maa ngi leen di dalal. kon nee mi ngi leen di di leen wax ne barab bii. di leen wax ne barab bii. barabu Serigne Touba la. barabu Serigne Touba la. barabu Serigne Afia. barabu Serigne Afia la. barabu njabootu Serigne Afia barabu njabootu Serigne Afia la. yàlla dogal ñu nekk fi. yàlla dogal rek mu nekk fi. ndax bi ngeen di ñëw. ndax bi nuy ñëw. di waaj yoon wi. di waaj yoon wi. ni nu waxtaane woon rek. ni nu woon rek. te nga junj ko léegi. te nu junj ko léegi. ci sama doomi bopp ji. ci doomi boppam ji. di sëñ Modou Abdou Wadoot. di sëñ Modou Abdou Wadoot. mu doxoon ci diggante bi. mu doxoon ci diggante bi. mu jaar sunu digganteeg sunu waajur. mu jaar digganteem ak waajuram. sëñ sëñ Saalihu di xalifab sëñ Afe. sëriñ Saalihu di xalifab sëñ Afe. E, lañ ca doxoon yëpp. lan ca doxoon lépp. rafet na. rafet na. e ba yàlla dogal ngeen ak si fii. ba yàlla dogal ñu ak si kon moom itam. kon moom itam. E, na nga ko sante. na nga ko sante. Eh, dañuy dañuy dañuy sofaat ci cant googu. dañuy sofaat rek ci cant googa. di ko soññ. di ko soññ. ndax ah, duñ ko mën a gën a sant. ndax duñ ko mën a gun a sant. ndax ndaw la lu ñuy liggéeyloo rek. ndax ndaw la rek lu ñuy liggéeyloo. kon waaye yëg nañu li muy liggéey. waaye nag yëg nañ li muy liggéey. Eh, sëñ Saliou mi nga xam nag tey. sëriñ Saliou mi nga xam ne nag tey. moo fi toog jataay boobu. moo fi toog jataay boobu. e lañ wax ci njaareem. lañ wax ca njaareem. du ma ko mën a nettali. du ko mën a nettali. te dégluwuma ko. te dégluwuma ko. waaye li ma gëm mooy. waaye li ma gëm mooy. lu baax rek la. lu baax rek la. ak delloo sëñ bi njukkal. ak delloo sëñ tubaar rek nag njukkal. Eh, kon bu ñu agsee fii itam. kon bu ñu agsee fii itam. Eh, dafa rogalaat ba agsi fi rek. dafa rogalaat rek ba agsi fi. yàlla dogal itam. yàlla dogal itam. sens bi ñu am. sens bi ñu am nag. fii di Afe Mbàkke. fii de Afe Mbàkke. ñu fekk ma fi. ñu a fekk ko fi. ndax bu ma fi nekkuloon. ndax bu fi nekkutoon. sëñ Modou mii mën naa ñëw toog sëñ Modou mii mën naa ñëw toog waaye yow it mën ñëw toog waaye yow it nag mën ngaa ñëw toog yow mii mën nga ñëw toog nee na man mii sax man na maa ñëw toog sëñ Mbaye ñoom ñi doon wax mën nañoo ñëw toog sëñ Mbaye ngiraan ñoom ñii mën nañoo ñëw toog wax li ñuy wax wax li ñuy wax ndax nosu na ndax nosu na muy sëñ Afe day koo xam ne muy sëñ Afe day koo xam ne ah xaan la ganee àdduna poroxaan de la ganee àdduna defe naa 1870 wala 1870 wala 71. Euh, kon sëñ bi xa mage na ko fukki at ak juróom-ñaar. Serigne Touba mage na ko fukki at ak juróom-ñaar. maam Cheikh Anta Porokhane la gane àdduna. maam Cheikh Anta Porokhane la gane àdduna. borom Daaru Moti Porokhane la gane àdduna. borom Daaru Moti it Porokhane la gane àdduna. Serigne bi bi sëñ Mor Anta Sali dem Porokhane am na juróom-ñeenti at wala fukki at. Serigne bi bi Serigne Mor Anta Sali di dem Porokhane am na fukki at am na juróom-ñeenti at fukk waaye am na ñoom ñoom ci wetam lañu ñu gane àdduna kon ñoom ci ak ak wetam lañu ñu gane àdduna mu yar leen mu yar leen jàngal leen jàngal leen ndax li ñuy njëkk a jàngal am na ci ma xuddoos sa ñaafe mhm. la ko njëkk a jàngal ak ak nee na mawaahibul xuddoos bi mu ko taalifee sa ñaafe la ko njëkk a ak sëñ seex coro te mawaahibul xuddoos euh, waxuma jàng ko waaye dégg ko defe naa kenn mënu koo def <laughs> waaw dëgg ma de mawaahibul xuddoos moom neexut a dégg ku ko sëñ ku ko sëñ Bamba jàngal ba nga dégg ko nag ku ko sëñ Tuubaa nag jàngal ba nga dégg ko lu ñu la doon wax ci topp yàlla gëm yàlla ak ak ak wéetal yàlla da war a gëm ne ku wéer na ci moom lépp loo xam ne mandargay tawhiid la rek yu jëm ci yàlla danga war a dégg ne kooku ko loolu war naa ne ci moom ndax ki ko def moo ko jàngal ndax ki ko def moo ko jàngal ànd ak moom ci lu bari ànd ak moom nag ci lu bari ànd ak moom mm, gànnaar ànd ak moom gànnaar ànd ak moom jolof ànd ak moom jolof ànd ak moom njaareem ànd ak moom njaareem ba cër yii ngeen ci wax juddu ci. ba cër yi nga xam ne moom lañ doon wax lépp juddu ci. cërub nag dama laa farale julli. cër boo xam ne nag Serigne Touba da koo tànn mu jëm ca boroomam mooy la julli laa la farale. ak julli ni mu rëyee. ak ni julli màggee ak ni mu rëyee. ak ni mu rëyee ci yàlla. ak ni mu rëyee ci yàlla. ak ni mu rëyee ci yonent bi. ak ni mu rëyee ci yonent bi. ak ni mu rëyee ci Sëñ Touba. ak ni mu rëyee ci Sëñ Touba. ak ni mu foore ci lislaam. ak ni mu foore ci lislaam. ku ko xam. ku ko xam. kuñ ko kuñ ko kuñ ne moom laa la ku ñu wax rek ne moom laa la farale xel war naa mën a dal ci kooku kooku moom ku mën a doon rek xel war na caa mën a dal moo tax sunu xel dal ci moom moo tax sunu xel dal ci sëñ Afe ci ngir maam gi dalu ci sax nag ngir maam gi dalu ci ngir ngir ni mu demee demu ci it ci ngir ni mu demee dafa dal ngir liñ ko dénk dafa dal rek ngir liñ ko dénk boo gisee nga jaar ci barab yi boo gisee nga jaar ci barab yi jaar teneeful jaar teneeful ma wax nit ñu génn na sëñ Touba fi yable nañ la teeru. ma wax nit ñi ne nañ génn sëñ Touba fi yable nañ la teeru. nga jaar Booro. nga jaar Booro. Eh, benn ndaw boo xam ne ci man la bokk moo tabax jumaa ja lenn ndaw loo xam ne ci moom mii la bokk moo tabax jumaa ja muy Abdoulaye Karam Basel. muy Abdoulaye Karam Basel. nga dem. Eh, yoonu murit day caaxaan duy tappale. déedéet. déedéet. fu fi dëgg gi jaar. fu fi dëgg gi jaar rek. kooka ku mu doon. kooka ku mu a doon. topp leen. ko. barke borom Tuubaa. waaye ñi lay wax Jibril yónni ñëw naa ñëwut. ñi lay wax naal ay xëy bu naan la jibril ñëw naa ñëwut bu leen leen déglu bu leen leen déglu déglu leen sëñ Touba déglu leen sëñ Touba déglu leen ki yàlla yónni woon ci noonu déglu leen ki yàlla yónni woon ci noonu bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee da ngeen mën a àgg na ngeen war a àgg da a àgg na ngeen war a àgg waaye li fi mag ñi defoon waaye li fi mag ñi defoon kenn mënatu ko fee def kenn mënatu ko fee def kenn mënatu ko fee wax kenn mënatu ko fee wax muy muy toppe bii nga xam ne sëñ Touba ak baaxam muy toppe gii nga xam ne sëñ Touba ci ak baaxam buy wax buy wax dafay wax euh, Cheikh Ahmed Tidiane. day wax Cheikh Ahmed Tidiane. wax Seydina Abdoul Khadir Jilani. wax Seydina Abdoul Khadir Jilani. wax saa seliyu. wax saa seliyu. wax di wax rek. di wax di wax rek. ba fàtte boppam. ba fàtte boppam. tuutal boppam. tuutal boppam. te ca ca ca gaaña la. te ca gaaña la. te kenn mës sa gis mu bàkko. te kenn mës sa gis mu bàkko. waaw naka la ku ferut ijji mën a bàkkoo nag. naka la ku mel ne sëñ Tuubaa fii mu toll ca bàkkuwut ku ferut ijji di bàkku. xamee woo say farata bëgg ne maa jiite njaboot gi. xamee woo sax say farata bëgg ne maa jiite njaboot. sëñ bi wax leen ci. sëñ bi wax leen ci loolu na ngeen ci wax lañu ci wax mooy yoon wi kat moo tax man may wax ndax man mm-hmm. du ma waxantu sëñ Moustapha nee na yoon wi rek ko tax di wax te du waxantu mm-hmm. kon nan jàppaat sëñ Touba kon nan jàppaat sëñ Touba lu fi mën a sosuwaat ñu di ko sosaat ci réew mi lu bees luñ fi mën a déggaat ñu koy sosaat ci réew mi sànni leen ko ci àll ko sànni ci àll ba te àndaat ak sëriñ bi te àndaat ak sëñ Touba gëm sëñ ñeneen ñañ gëm ña ñeneen ñen gëm nañ ànd ak ñooña nañ ànd ak ñooña te kilifa rek te am kilifa rek maa ngi sant ñëpp nag maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. ah li nu sëñ Touba liggéeyal liggéeyal. lii ñu sëñ Touba liggéeyal. yàlla nañ ko jariñoo. yàlla nañ ko jariñoo Mbacke. di ñaanalit barab bii ngeen nu fekk. di ñaanalit barab bii ñu ko fekk. ak ñooñ barab bi. ak ñooñ barab bi. ngeen ñaanal leen. ngeen ñaanal leen. duma leen ñaanal yéen yéen ñi jóge ci sëñ bi yéen a leen di ñaanal. du ma leen ñaanal yéen ñi jóge ci bi yéen a leen di ñaanal. yàlla defal leen lañ bëgg. yàlla defal leen lañu bëgg. ndax ñoom ñoom ñoom am nañ tawhid ne. ndax kat ñoom am nañ tawhid ne. Eh, ci sëñ Touba. ci sëñ Touba. loolu loolu waxi biir la ñoom. xam naa ñoom xam nañu. xam nañ ñoom. nga waxaat sëriñ bi ne ko. nga waxaat sëriñ bi ne ko. nun de duñ ko critiqué. noonu daal duñ critiqué sëñ bi de. noo ngi ci wetam. noo ngi ci wetam. ku ne xam na. ku ne xam na. kalaman kalaman barke borom Touba. xam nañ ne def na ci fan yi loo xam ne. xam nañ ne Cheikh Mamadou Mountakha def na ci fan yi loo xam ne. Euh, euh, alhamdulilah rabil alamin moom daal baat boobu muy wax rek alhamdulilah rabil alamin def na fi loo xam ne. def na fi loo xam ne. mboolem ku ku am dara lu yëngu ci yow. mboolem koo xam ne am nga genn yëg-yëg gu yëngutu ci yow. xam nga ne eh, jataayu sëñ Touba bi mu toog. xam nga ne jataayu sëñ Touba bii mu toog. yàqu ci dara yàqu ci dara. nun ñi koy jàppale. ñun ñi koy jàppale. buñ ko ci jéem a tilimal dara. buñ ko ci jéem a tilimalal dara. moom lim ne ma nga ca rek. moom daal moom la lim ne ma nga ca. te yëgu ci dara dane lu agsi rek lu agsi rek bu agsee nga xam ne agsi na waaye man doonu ma ci dara. te du ci boppam ci dara. lu agsi rek. day xam ne ak seen rek waaye xam nga ne ku dul sëriñ Touba waaye xam nga ne ku dul sëriñ Touba mënut lim def mënut lim def waaye billaahi kon nag kon nag te da koo ànd ak mboolem jullit yëpp te da koo ànd ak nag mboolem jullit yëpp man mi nekkoon ak moom gis naa ne jullit yëpp ñëw nañ man mi nekkoon ak moom gis naa ne jullit yëpp ñëw nañ tarixa yëpp ñëw nañ tarixa yëpp ñëw nañ catholique yi ñëw nañ catholique yi sax ñëw nañ euh, église ba euh, ca lañ doon jullee ajjuma lu kenn mos a gis ci àdduna église ba lañ ubbi na leen jull leen ci àjjuma kenn kon nag kon nag kooku ubbil nu yoon woowu kooku ubbil nu yoon woowu sëñ Touba ci sëñ Touba nan def lu yiw nañ def lu yiw di ko wax di ko wax ndax ñu ubbil buntu boobu mu ubbi woon ndax bunt boobu mu ubbi woon ku nu bëgg a yàpp ku nu bëgg a yàpp bëgg cee jaar bëgg cee jaar xëy na sax da nga ciy jaar nii rek xëy na sax da nga ciy jaar nii rek boo nee mbàkki mbàkki yi nangam nangam boo nee mbàkki mbàkki yi nangam nangam ah gis nga war ngaa mën a gis euh, ku mel ne yéen war ngaa gis ku mel ne nga taggee ci sëñ Touba. nga taggee ci sëñ Touba barke borom Touba. waaw ndax buñ ci xasee kenn rek. ndax buñ ci xasee kenn rek. junni bu juba nga ca wet ga. junni bu juba nga ca wet ga. waaye nag kenn ki na fexe ba jub rek. waaye kenn kooku ñuy xa ñuy xase yoon wi na fexe ba jub rek. ndax gaa yi li leen dajale fii. ndax gaa yi kat li leen dajale fii. mar. mar sonn sonn ñëw di di kii ngir jëmi sëñ Touba. jóg bàyyi lépp ngir jëmi sëñ Touba. di joxe liñ joxe. di joxe liñ joxe. ñooñu ñu ngi ci kanam ñëpp. ñooñu daal maam ñu xam ne mi ngi ci kanam ñu ngi ci kanam ñëpp doomi xol lañu taalibe yi doomi xol lañ ci sëñ Tuubaa ñoom taalibe yi te doomi xol xol moom beneen mbir la kalmaliki fil ahlaay waaw moom daal oh, buur la buur la ci cër ya ci waaw ca biir cër mu jàng rek mooy seen mooy seen seef fu mu jàng jëm rek fa la cër ya jëm mu jàng jëm fa mu jàng jëm kon yéen moom ngeen kon yéen moom ngeen yéen taalibe yi kon nag maa ngi leen di santaat kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di santaat di leen gërëm di leen gërëm dafa fekk ne nag dafa fekk ne nag murit boo xam ne eh, dafay daanu murit boo xam ne moom day daanu di bég ci boppam ci sëriñ bi di yëg boppam di ci bég ci sëñ Tuubaa buy wax buy wax nii rek la mën a wax nii dong la mën a wax maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp eh, di leen woowaat yéen ñëpp ci màggal gi nag di leen woowaat nag na leen lii tàmbali waaye yéen ñëpp ci màggal gi ñu waaj rek jëm Touba ñu waaj rek jëm Touba barke borom ku juut tarde kat nee ku kuy juut sëñ tarde de billaahi kuy kuy sëñ Saali waxoon na ne sëñ Saali waxoon na ne ehm, kii jëf ci màggal gi kii jëf ci màggal gi du bokk ak mukk ci du jëf du bokk mukk ak ku jëfut ci màggal gi li ngeen am lépp def leen ko ci li ngeen am lépp def leen ko ci màggal gi da ngeen ci jële la dara laneen da ci jële laneen mos leen ah li ci sëñ Tuubaa jële li ci sëñ Tuubaa jële ah, li ci des dañ koy fortaat rek. li ci des dañ koy fortaat rek. noppi na noppi na. togg gi noppi na. togg gi ñor na xom. kenn doonu ci dara. kenn nag doo liwu ci sax ab xorom doonuñu ci dara. ndab li togg nañ ko ba ñor. ndab li daal borom togg na ko ba mu ñor. ku la dikk naa la ndab li li yëg laa xamal ne sëñ bi togg na ko. koo dikk daal di la wax naan ndab li léegi laa yaag moom a ci yem. rek eh, eh, eh, da gën a daru fi daa dikk rek fekk mu ñor. waaye ñor na waaye ñor na. nan raxasu ta lekk rek. raxasu ah, ah góor. te xam ne doonuñ ci dara. na raxasu lekk rek ta xam ne doonuñ ci dara. maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp. mi ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.